waroo ko yàkkamti waroo ko xarti xarti na nga jël sa time nga gën a liggéey mm-hmm. nit ñi gën laa gën a ràññi daal moo gën a am solo maa ngi ci kaw maa ngi ci affaire album maa ngi ci affaire clip affaire bi daal bari na macha allah ok mm-hmm. yow am yi fi afro manding macha allah dafa métti nekkut lu yomba parce que kuy def afro manding baat bi moom da nga ko war a am trop because soo amutee baat bi doo ko mën a def wax dëgg yow mét lan nga am pour wax si sa wéy bi nga xam ne moom nga nekk di def you lan nga ñu am pour wax sa wéy comme comme comme like yow sa xa nga afro mandi nga dee def te neexut métti la léegi yow fu mu nekk ni right now métti métti bi nga xam ne moom moom la métti mhm. yow lan nga am pour wax si loolu ayda afro manding though it's not easy not even afro manding alone aar bi yëpp moo mel noonu mhm. aar bi dafa métti dafa laajte liggéey dafa laajte tëju il faut nga tëju si biir mun a research lu bari mhm. xam nga so dafa doon loo xamante ne il faut nga nga fas jom daal liggéey. waaw nga mun a train sa baat bi baat mooy everything. ak am uh, thinking la nga war a xalaat daal dafa bëri. so da nga war a moytu ci nit ñi disturbance yooyu noonu war waraloo ko accept too much so. dëgg-dëgg daal maa ngi tëju maa ngi tëju di gën a liggéey bu baax. right mhm. yow yan Gambian artist nga woyal or just fu mu nekk nii yaa ngi just focus pour di wéy yow keena noonu non maa ngi woy ak nit ñi woy naa Friki Jo woy naa Nancy si Friki si ban woy. allo Nimbara. ok Gambia musolu allo Nimbara. waaw yaaw def waaw woy naa ak Friki Jo boobu ak Nancy tam si naa muso. waaw na yeneen tam ñu ma soxla pour ma def ak ñoom combination. waaye euh, ñëwaguñu daal. mais dañ ma call pour leen ñu ngi ñëw. ok yow naka nga gisee Gambian music industry bi. ay de Gambian music fu ne nii sant yàlla. man kontaan naa ci kontaan naa ci trop wax uti nag first time before fu mu ne nii am nañ support mm-hmm. nit ñaa ñoo faale parce que music is all about ndax support and faale mm-hmm. soo amul ñu la faale ak ñu la yëgul doo mën a dem waaye fu mu ne ni sant yàlla am nañ fan si fan si ñu ngi taxaw suba ngoon guddee bëccëg saa yoo leen woowee rek ñu ngi jóg loolu yëpp ñun daf ñu neex waaw jali yow xam naa ñuy seetaan bari nañ mm-hmm. te sa fans ñu bari ah, macha allah bëgg nañ la bu baax a baax mm-hmm. yoon yeen yan constraints moom nga dee face like comme yan difficulties sa mm-hmm. music bi moom nga dee face because ñu ngi laa seetaan xëj na moo am koo xam ne dina la bëgg a jàppale sa music bi waaw dëgg la xam nga music dafa yaatu li nga bëgg doo ko mën a am di same sport dëgg la il faut nga jël uh, one by one step by step ok difficulté bi ma am suma music bi ay loolu moom il faut ñu am ko mhm. parce que anything looy def il faut nga expect for this difficulty no matter how so I need more support comme li ma la doon wax fi mhm. dañ dañu war a release suñu album we need to travel li liñ bëgg daal is too much duñ ko mën a wax fii yëpp right now Why maa ngi ñaan Gambie yëpp nañu jàppale baax a baax a baax. ok yow fu mu nekk nii right now comme si fekkoon ne da waroon a am koo xam ne dina la bëgg a jàppale. Mhm. si lan nga bëgg fu mu nekk nii loolu moo la gën a itteel. mooy suma affaire album bi. ok it's very important. ok waaw su ma amee moom ku ma ci taxawoon moom dina ko liggéey right now. ok incha allah. ah Jali bëgg ñoo xam rek am Jali dafa single wala Jali am na jëkkër. Jali amoon na jëkkër. oh waaw waaye amat amaguma amatut. amatut waa jëlee lan nga foog ne mooy problème bi. <laughs> non yàlla la rek Aida. waaw déedéet xam nga. Ah. la yàlla la ba. Mm. dañ toll si jamono boo xam ne. fu mu nekk nii right now. Mm. ndawi nekkut Gambia rek foog naa it's all over the world. dëgg la suñ yaay yi nuñ daan mun a toogee sëy. dëgg la ñun munatuñ ko. man sax war naa loolu. léegi man na mu. dama bëgg a xam am ñoom ñu daan sëy mm. ak ñun nu ñoo sëyi léegi dafa utee ndax léegi wool bi moo change na because bari na nga dee dégga nit ne dugg na si sëy mm. du yaaga mu génna but fu mu jaar mu nekk loo xam ne problème because xam naa ne mm. bu desee si yàlla rek bëgg na jigéen ñi yëpp sëy nekka you know téye sa sëy bi nga góorgóorlu si be bés bu yàlla defee kenn si yéen yàlla jël leen ba léegi right now dañ toll si foo xam ne loolu amatut loolu sax lañ dee wis loolu sax li nga wax fii loolu parce que kenn ñaanu yàlla nga dugg si sëy nga génn loolu kenn ñaanu ko yàlla mm-hmm. loolu la ñëwee si xëy na yàlla foofu la ko di dogale rek te ja doomi jeet naka doomi aadama fu la yàlla yemale rek foofu ngay yem dëgg la waaw waaw <laughs> naa ne fu mu nekk nii <laughs> ah. bëgguma laa gën a just you yow fu mu nekkee nii ran nga am pour wasa fansi ndax wita fansi ñun ñëw dem fen mm-hmm. ñii ñooy bàyyi sa nalaw yi Bay sen soxla yep dañu top dañu top man awma sen fay dama len di bag yalla rek degal wow okay ok yo 2013 bi lan nga ñu amal Jallow suso am ba Aida new surprise mi ngi ñew a very very big surprise it's on the way coming okay very soon yeah okay mm -hmm. gambe ñu mm-hmm. la ñëpp ñepp ngi la déglu Jali bu fekkee ne dafa am ko xam ne bëgg nga ko gërem mm-hmm. bu fekkee ne dafa am lo xam bëgg nga ko wa fini nii BNL bi yaay borom ma ngi lay gërëm yow sax si ta bop Aida parce que da nga doon ko xamantene epi da nga bëgg sa liggéey et puis da nga da nga tey itam wàcc sa bop xam nga liggéey bi dama li ma lay advice mooy ne yombul lépp looy def ci aduna il faut nga muñ. dara yombul. ma ngi lay gërëm baax di ñaanal di advice nga gën a fas jom. di ñaanal suma xarit bi Kumba dafee aji mhm. Kumba Kumba bëgg la. ay siix lañ nag ak siixandoro mi ngi dakaar aji ndey maa ngi koy gërëm baax a baax a baax waaw maa ngi gërëm suma yaay ak suma rake fili suso mi ngi ni toog mm-hmm. suma xarit yi Mariama am naa fi fans club tam ñoom eh, fekk gaa ngi ni toog ñu ñoo may support ak suma xale bu baax ay Aïcha Wage mm-hmm. Aïcha ngara xale bu ma bëgg la ndeysaan bés bi ma gis dama doon wey ci benn xew rek mu gis ma ñëw lang ma di jooy xale bi bëgg ma ci xolam rek ma invité ko si plateau mu daal di ñëw man dal awma lima fay wax tay lu dul rek dama contane sama xol sedna ci yeen thank you very much fum mu nekk nii mhm. ah duñ def dara rek lu dul nga ñëw fi nii rek tok fi amu ben problème man yeen lay deggal <laughs> lo leen bëgg rek lay def thank you okay thank you so very much Jelly. um di kontaan si li nga ñëwee fii nii tey si BNL bi duñ def dara fu nekk ni lu dul am a short break waaye before ñuy am short break bi du def dara lu dul ñaax yéen ñi nga xam ne yéen a nekk di seetaan pour bu leen fàtte like suñ Facebook page bi ñu ngi am Twitter page also ñu ngi am Instagram ba pare ñu ngi am website ah, mun ngeen dem seeti suñ website bi si www dot banjulnightlife dot com ñu ngi am foofu noonu news yi nga xam ne mu ngi xew si Gambia bi fii nii ak event yi nga xam mu ngi laata xew si fii nii si biir Gambia bii nii also um, di leen fàttali ne suñ event bi nga xam mu ngi xew January 4th um, Banjul Night Live ñu ngi am big event called Celebrities New Year Celebration with top Gambian artists di leen ñaax yéen ñi nga xam ne yéen a suñ fans yëpp ngeen génn si ñoo support si um, Jaama Hall lañ ko defee Gambia nag fu mu nekk nii ci kaw ca kanam music bi mu ngi dem si kaw mu ngee dem si kanam yéen ñi nga xam ne yéen a nekk fans yi yéen a nekk supporters yi da ngeen war a génna yu know ngeen sop ñu supportante ndax lépp loo xam ne ñu ngi ko def rek mu gën a yomba wax bi tey nag du bari because fu mu nekk nii ñëpp ñi nga xam ne ngi toog fi ñu ngi yaakamti ñi nga xam ne um, ñoo fi ñoom lañ fi am tey muy suñu artiste pour ñu ñëw perform nañ am short break suñ jóge si short break boobu noonu rek dinañ am news of the town mu perform si perform bi pare ñoo am jëlim nee na